dikkati naa bu ñii di gàmmu dee ñee ngay ras dem li am ci réewum Sénégal tribune yéen kaay ma déet bu ñii di wax waxi candidature ak waxi élection présidentielle ca beneen pàcc ci réewum Sénégal ña ngi fay faati bakken manifestation la askan wa amaloon ca xosanto ñaari doomu aadama ñu daal di leen fay faat ci anam woo xam ne métti na vox populi ne ma ñaar ñoo faatu waaye fukk am nañ cay gaañu gaañu mbir maa nga amee nag ca xosanto libération yéen kaay naan kon ma mën maa ëpp doole kenn ki mani la juróom fukki at ak juróom ñett la am te ña faatu amoon na soxna juróom juróom-benn ci bant moom ci boppam rakku maire bu xosanto la keneen ki nag ab burkinaabe la bu am ñaar fukki at ak juróom-ñaar tribune yéen a kaay ne ma dara préfet ba moo génn benn arrêté ci askan wa nag nañuy liggéeyee ca miinu or ak ñoom seen askan wa kontaan tàccu ko ñu xëy suba soppi arrêté wa ne nag ña nga xam ne amuñu ci ak lijaas ak njàng gu sori seenug liggéey dafa war a am fa mu yem askan wi nga xam ne xamuñu lu dul or woowee or wa feeñ ca seen dëkk terewul ñeneen ñoo koy daal di jariñoo génn di naqarlu ni moy arrêté wa ñu dal seen kaw songu leen faat leen ci anam woo xam ne métti na lool budul woon ak ministre de l'intérieur day lambay ñaaw ndax saa si ma ni la dafa xoj préfet ba ne ko génneel weneen arrêté gaaw gaaw na gaaw beneen arrêté na génn askan wa ci boppam ñoo jeex point actu naan maan wutum woor wa day ma nga mel ni tulleeg maa la ca Kédougou gannaaw bakkan yi nga xam ni rot na fa weer ak juróom-ñaar ci ñoo xam ne dañ doon manifester teg nañ leen loxo ministre de l'intérieur war a jiite tey ab CRD foofee war ca déggoo ak ministre bi ñu dénk wàllu mine ak géologie Amnesty International ak Afrikajom Center di naq naqarlu Fatou bakkan nga xam ne am na ci seenu gox googee waaye tam di sàkku enquête boo xam ne dina leeral lii ndax Birahim Seck bu forum civil artu woon na nee woon na lay raam ca Kédougou googee ma nga jëm ca ñag wa de te buñ ko seetaanee ba mu yegg fa maar dey taali 24 heures yéene kaay naan maan ay faatu yu ëpp waay ca seenu gox or feeñ fa askanuk saraya di dund maar day taali xoqutal nañ leen bundu xatal nañ leen sës nañ leen ba ci miiru wis bi fi ne nag faa seenu bakkan moom moo ci des tribune yéene kaay naan maan moo taxit wax waxtu wi nga xam ne fal nañ ci Amadou Ba baaxul ci moom ndax Sénégal fi mu ne comme yaramu màggat foo lamb foo lamb ci réew mi mi ngi miti yéen kaay bi dee média bi naan kon Amadou damay wax ak yow rek jamono jii la président Macky Sall tànnee naan laan boo moytul yaay jiite réew mi ma ne la baaxul xam nga Sénégal toll nañ foo xam ne l'enquête quotidien naan kon maa lay feelu nguur gi ci boppam mi ngi ci mbedd mi ku ne mën ngaa génn foor ndax ba nii kenn xamul élection présidentielle day am am du am ndax kenn xamul ba tey kan mooy candidat ci ak ci nguur ndax bu dee biir nguur moom tasaaroo na tasar ña ngay tamanteeg di xeexoo ci seen biir source naan man Birima Mangara candidat la l'évidence yéene kaay naan man am ñeneen ñoo xam ne nag fas nañ yéen a janoog Amadou Ba Arona Diawara Ngemba Abdoulaye Daouda Diallo ay milliardaires yoo xam ne ñoo jàppale woon Macky ba mu jot ci nguur gi tey jii ñooy def ay lobby laa la wax pour amadu Ba ñàkk tribune yéene kaay naan kon Mam booy Diaway tey lay wax te la leer ba leer mooy Mam Boy ci boppam day gàddu ay dëbësam daw fàq kay ca Benno Bokk Yaakaar lay def sampum dëndëm moom Mame Boye Diao le mandat naan kon Sall nga yor yatam rek Sall moom boo noppee doon xale bu yaru mën na laa jox karoot nga yey ba say ŋaam di wadd waaye da nga suur waaye boo ko jaayee fippu dootoo ko defati yéeni kaay bi naan maan moom président Macky Sall man ni la képp ko xëpp suuf cere ci sii boo moytul doo reer Walf Quotidien naan maan déet du suuf de ay xeer ci boppam la gaay yi Benno Bokk Yaakaar yi dugal ci biir dàllu aamadu Ba le point kaay naan kon faali sekk bokku ci tribune yéeni kaay naan ko déet Amadou Ba kay fi mu ne askanuk Sénégal lay daal di janool ndax nag ñi ko nar a sédd Sénégal goo xam ne dund gi metti na ndaw yaa ngi dund jaxat na ma daanaka ci réew mi dem ca gaal ya faatu ca moo leen gënal toog ci réew mi waxtu woowu nag biir APR ma nga mel ni sabar gu tas sabaru ñooñu noonu lay daal di nirool fi mu ne APR mbir yaa nga tasaaroo ma Mamadou Lamine Diallo ne ma ne la lii ñu bëgg def xel moo ko nanguwul ñoo tànn ci réew mi ko xam ne moo nuy jiite ab bourgeois la dëkk ci kër goo xam ne ascenseur la am waxtu woowu sénégalais yaa ngi faatu ci xiif ak mar kon yow Amadou raayeeg soldaar gi ñu la daal di tappal soo ko jéggee ma xam ne daal am nga gàllaaj Amadou Baal Assane Sall naan kon ay ndëgg sërëx a ngi nii taxaw sa wet ndax nag yow Amadou Sénégal ci boppam ñoo goqi président Macky Sall Sénégal ñoo bëggatul président Macky Sall te fi ne nag yow Sall ngaari lam tooro bur gédé moo la ngemb te sénégalais yi nag tudd président Macky Sall ku leen faat lan yemale te fi mu ne nag ruquk Sall gee mënoo ko génn de ndax moo la defar ba nga baax teg la ci kanamu askan wi ne leen fallal leen ma ko te nag loo ci manti déggit diggante sénégalais ak président président Macky Sall moom moo neexatul soo fàqee sa yoonu bopp ëllëg mën nañ jàpp ne da nga war président Macky Sall te boo nee continuité nga fi indi dootoo ko defati ndax sénégalais yi ci boppam ñoo lay dudd wan la gannaaw ndax fi mu ne changement la ñu bëgg changement boo xam ne yow Amadou mënoo ko ndax nag la Sall defoon rek ngay wéyal plan Sénégal émergent ngay wéyal ba fii ak 2035 plan Sénégal émergent boo xam ne lu mu digoon sénégalais yi wàcc na ko ñett ci ay axe la daal di taxawee woon moom moo di joyanti koomu réewum Sénégal ñu dig ñu ay xëy ak secteur njuumte yoo xam ne dana am ci réew mi El Assane Sall naan leen furaas Sénégal kay fi mu ne dafa tumuranke ak bor yoo xam ne tongal na ko ngeen ni woon askan wi daañu gis seen bopp furaas tey la ñu ndooloon gën a ndóol tey la ñu amoon di gën di am ci kaw poosu baadoo la lan naan ñaqum baadoo la mooy siim terey buur moo am ci réewum Sénégal xëyu ndaw yi ngeen tegal nu ko ngir faxas suñuy gën dara tey jii xale yi ñi ngi fees dell ci ban jaaxle yi xamatuñu fu nu jëm ngeen nu ñu woon di ngeen andi kaaraange ci réew mi ana kaaraange goo xam ne fitna ku wax lu safaanoo ak li buur bëgg yaa nga kaso ñuy faati bakkan ñàkku kaaraange tey la gën a doon dëgg ci réew mi alasan naan kon Amadou tegal suñu loxo dara balaa muy naaj ndax fi mu ne nag wóyal jëfi président Macky Sall day boo ko wootee ci réew mi Amadou kenn moo la dul gestu te sañoo ko bañ a wóyal ndax Sall moo la defar réew mi ko dajee naan leen attention yéen opposition bi tasaaroo ngeen ci anam woo xam ne lii de mooy tax sax ndax faf amadu Ba am ndam waxtu woowu tribune yéen a kaay naan man cité Chérif Abdoulaye Thiaw ca Malika lu toll ci ñetti junni ak juróomi téeméer ñoo xam fa jëndoon suuf mu am i jafe-jafe léegi jafe-jafe yi jeex ndax jébbal nañ leen seeni suuf saa si temme nag mën nañ tàmbalee tabax l'exclusive yéene kaay naan maan bàyyi amadu kamara ma ñu dippee messi social may waajalit gàmmu jaxaay tey di taxaw waa jaxaay yéene kaay bi naan maan lenn moo ko tax a jóg fu waay féete ci wàllu politique waaye tam ci wàllu tarixa ñu booloo doon benn ngir mën a suqali jaxaay ni tug yàlla gu taxawal ay daara ca jaxaay taxawal fa ay juma waaye tam bàyyi Amadou Camara jàngal ndaw yi alxuraan kaay naan li nar a réeral sénégalais yi moom moo di wopp cancer goo xam ne mi ngi ni xuus ci réew mi docteur Bernabé Gningue directeur de la santé publique ne lu toll ci fukki junni ak ñaar ci doomu Sénégal at yàlla sàkk daañu am wopp jii di cancer vox populi naan alerte rouge am na de ndax léegi ñi amagul juróom fukki at ñoo am wopp yooyu nga xam ne wàlle wuñu professeur Amadou Gallo Diop ne soo demee neurologie nga dem cancérologie nga dem cardiologie nga dem diabétologie nga dem psychiatrie foofee mani la ña boo leen xaajee ca xaaj ay xale la ñu amagunu juróom fukki at fii ci Sénégal ñiy def dialyse ak chimiothérapie waaye itam ñi nga xam ni ñoo am AVC amagunu juróom fukki at ci 2022 bii ñeent fukk ak juróom jàpp ñeent fukk ak juróom benn ci koo gis mu faatu ci réewum Sénégal ma ni la wopp yooyee dul wàlle lu ci mel ni cancer jabet ak ñamu langool ñoo leen faat directeur de la santé wopp woppay noonu te wopp jabet wopp cancer AVC yeeg la mu langool mi ngi faat te Sénégal nemmeeku na ni ndaw yi lay gën a faat